taxawaay bi daal sant si yàlla bi baax bu bëri bëri bëri bëri ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp eh, gaamu gi nag bañ ko commencé yàgg na lool man mënu maa ko kan la kañ la waaw man suma bopp man ñuy wax yéen nii maa ngi judd tey 1927 ci laa judd waaw ci laa judd ñëw fekkee gaamu gi fii 1939 ma ñëw jaxasoo ndongo yi ñun ñëpp ñu nekk fi. ñuy def fekk góor gi di gàngo ay at yu at at mënuma kenn te Banjul fi mu nekk nii mënuma ne kenn ku mën a taxaw ne fekk naa bi balaa jëm Samba Cissé door gàmmu waaw li ma si mën na wax nii yaakaar naa ne man rek maa mën a wax ndax man damay ne jur laa 1927 toog ba 1939 ma ñëw fii si dëkk suma kër fa fekk ñu ngi gàmmu suñ toog ba ñoo gàmmoo nag ak léegi utee na dañ daan taal sondeel yi wasal kaamil kirib karab tantôt yooyu yëpp léegi dem naa dema dema dem am di développement boo xam ne bii alhamdulilah kenn foofu ko woon waaye lu baax lu baax a ko tuddal rek waaw yàlla leen yàlla fay. Ah, gàmmu gi nag ni ñu ko tëralee moom la ñoo ñëw pour wax leen foog nañ ne ko mboolem koo xam ne kii yaa ñoo déglu di ñu gis ci télé bi dégg nga pour lifin bi gàmmu gi ni mu daxee waaye ñu ngi leen a yëgal itam ne gàmmu gi bés la boo xam ne ñu ngi koo def ci bési samedi. ci ñetti fan ci weeri maac programme bi nag nii lañ ko tëralee tàkkusaan gi dinañ jànga kaamil bi ci Hardinson Street ci kër gi guddi gi dinañ def gàmmo gi ci Johnson yi Wellesley ak Thompson Street ñu ngi oo nag bépp a ñu ñëw teewale ñu kii taxawee gàmmo gi nag kenn réeréewu ko mbir muy imam Thierno Alioune Maska bi nga xam ne mooy imaam ratib bu Gambia ñi ko cee jàppale nag mooy oustaz Dramé ak imaam Massamba Diagne ñu ngi oo nag mbooleem julit comme niñ ko waxee daayira yi nag bàyyi wuñ kenn ko ci daayira ahlul badarin daayiral kiraam xaasihiin ak mbooleem daayira xam ne ñu ngi ci biir dika bi ñu ngi leen دخلنا به في سل أمن ويسمة أتمنا به لله أصبع نعمة لا يغنى به سباق كل أمة ولولا وكان البعد أسباق كل kooku mooy Seydina Muhammadu Rasulullah. jërëjëf jërëjëf Mbaye Donde Sylla tabaarakallaahu Euh, bu ngeen déggee kàddu yooyu ngeen xam ne am na lu xew bu kàddu yi jibee ngeen xam ne l'islam ayeti na fa tabaarakallaahu lan moo xew ñan ñoo koy xewal fan lañ koy defee fa tabaarakallaahu danañu jox suñu ustaas euh, Malick Sall mu waxtaan ak yéen bés bi lan moo cee xew fa tabaarakallaahu ci ndigalal euh, xalifa bi fa tabaarakallaahu ñu ngi ànd ak suñu xarit ki nga xam ne mooy taxawu bés bi di xalifa xalifa jawara fa tabaarakallaahu ñu jox ustaas Malick Sall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 ak euh, euh, ummi jaawara ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo bokk ci famille jaawara boobu ñi ngi koy def nag ci njiital Serigne Babacar jaawara mi nga xam ne mi ngi bokk ci euh, daairatu nuuru fillah woote bi kañ la ak fan la kañ la mooy ñi ngi koy def ñaari fan ci weeru maaj dëppoog bisu ajjuma fan lañ koy defee ñi ngi koy defee Ibo Town jàkk ca jumaa yi may sa mbay heure bi kañ la mooy ñeenti waxtu ci ngoon incha allahu ci la ñuy door programme bi kan mooy def euh, conférence boobu nag mooy ku ñuy wax <coughs> euh, ak oustaz Abdullahi Darame mooy taxawee conférence boobu ñi ngi ci woo nag daaira yépp daairatul kiram bi nga xam ne ki ko jiite muy alaaji kan daairatul mutahabina fillah nga xam ne ki ko jiite mooy Baye Daam Ndaw ak mboolem daaira yi nga xam ne ñi ngi aju Tiwaawan te it woote bi ñi ngi ko teg ci ndigal li loo xam ne mi ngi bàyyi ko Tiwaawan di ci wax nag suñ euh, mbokki murid yi daayira yi aju ci maam si Ahmad Bamba radiallahu anhu ñoom ñëpp ñi ngi leen di woo ci jotaay boobu di ci woo imaam yi wasalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi dégg ngeen jotaay bi niñ ko doxalee rafet na ñu ngi woo ñëpp ca jotaay ba di ñaan yàlla ñu fekkee ko te it euh, jotaay bu am solo la ndax ñu ngi ko tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ku ne xam na ne bu toxu doon ak moom fi ko borom bi di waxee ne ko xalaqtuka min ajli wa xalaqtu kulla shay'in min ajlika kon suñ wootee ngir moom dellu ca boole waale ca fàttali suñu sëriñ bu baax ba suñ bàyyi alxaaji Aboubacrine si di di doom ci eh, Cheikh Sidil Hadji Malick mm-hmm. ñu ne danañ wax tuuti ci ay jikkoom kon yaakaar naa béréb boobu mm-hmm. ku fa ñëw keroog di nga fekkee lépp bëgg na ñit mbay doon de si la bu keroogee ca ngoon mu ñëw animé ko woo nañ ci ñoom Alpha Gueye ak Oustaz salla Sall ñëpp pour ñu fekkee jotaay bi ñu ngi ci owaat dëkk bi yëpp di ñaan itam yàlla defal ñu ci barke su accès yalla na yàlla sotal lépp khalifa mi nga xamné nak moko moo ndaw la te ku bax la li wax kat bi wax ne wa bi himmati l ulya arqa ila al ula fa man kaana ahla himmatan kana sara ndax fi mu tollu ci ndaw ya mënon na dem dox ci lenen waaye yàlla ko xir mu ngi dox ci l'islam te néna nit ki nga xamné dafa am itte inshallah yàlla dina ko siwal ci lamuy dox diko itté ko assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh for us at the right hand of the Father, have mercy on us. I'm Sister Kelly Thomas SJC from the Catholic Mission. I would like to share today's gospel reflection with you. To start with, I like to share a short incident that took place in my own life not long ago. Last July 2011, I was home and I went to visit a classmate of mine. She was about to undergo chemotherapy following an operation for cancer. We all know how painful this treatment is, what the effect of it. The patient loses weight and above all loses hair, which is so very awful for a lady. She told me smilingly that her husband had promised that if she lost her hair, he will shave his off too. It was his way of saying that although he would go through the chemo for, for her, he wanted to journey alongside with her. What an act of love and solidarity. Our purpose of fasting, prayer and almsgiving during this Lent. It will cost us, but this can all help us to grow into intimacy with Jesus. Be more sensitive to the needs of others. Lord. Help us to bear, hear your call and respond with a trust and generosity today.